Ramadan Mubarak. welcome back ñu dellu leen dalal leen si li nga programme bi nii fii di bàyyi ko Africe Amin ah, Diaties waa indil ko ah. oustaz nag mu ngi fay wax wax yoo xam ne daal yaakaar naa ne àndut ak programme bi mm-hmm. wax naa ko ne rek mu bàyyi mm-hmm. euh, parce que mu ngee tooñ mm-hmm. um, niñ ko waxee rek oustaz um, Abdoulaye Dramé aniŋ papali ko ŋa fo niñu baadiŋol mandinkol min be lamoy kañi waato abu ko ñiŋ moo naanol mi yalan ko ŋa tool diyal la komanto ŋe tomboŋ kombo tuba mara banko kam min keta komboti sajon sajon din damfa faton dong esa ndaw anin keba gay lafta mo kilne tombola ñin kono pour ka la ramoge kam yalla ko ngatele tombom banjun pour kata maka afrisel lam mo tombondir mool kono ñim mhm. mool be nga foye ne kaminke saabu ko saño ne nam faatabe sirim bakawle ate ka alquran kandido ke talibo lon mm. ah, maral feŋo fentabu walla manan kum fentabu la musoŋo nako do kolalte mm. ah, fatu ndong dong ate be seriŋ ibo tawne ne sanji tannan nin fula wala wole soto ah, min fitar la lom ate fana ka balu wala makolo mako la tabulo bari afana mako la babulo bari a kema fana be jele mm. e eh, sa ate be sanji taworo nin lulu atemu atemu business man tin ko man to bare ni wata man tara fenna uh, min aka manan ngol ke afana ka balu min uh, ah, ma be sirin ko tule ba gay fana dun atemu sirin sanje ba sanje taworo wala anim fula ay wala soto atemu karalla tin ko man to bare sayan dun amman tara fenna karalo aya di dingol da wala wala wala business o wala bulu wala fana ka ma koy nyim mo nana bu ko mon rok la wala papali ah, affaire si mongok imam mm. laajoon nga ma ci gannaaw. waaye bii moom. Mm-hmm. affaire si daal mu ngoog sa loxo sa kanam. Mm-hmm. waaw. ah déglu alaaji papali moom ah, bi mu jàngatee mbokk ñeneenti ñi. Mm-hmm. Euh, seen tanewante. Euh, te ku ci nekk fum ne aj màkka euh, dese na la ci sa ponki lislaam yi. te ticket bi benn la. jéem ñoo jàngatal. kan nga foog ne. moom lañu war a jox ticket bi. baax na jërëjëf jërëjëf imaam euh, ñeneenti nit ñi ñëpp gestu naa leen mhm. euh, kenn ku ci ne mhm. wax dëgg neex yàlla elloo nga ko mhm. waaye comme que benn ticket la ma ne xaaral ma gën a séntuwaat seetaat mbir mi seggaati ko ma commencé ci Kéba Gueye dëgg la mag la soo seetee ci atam ci wàllu lislaamam kenn werantewul loolu ne gis naa ne am na njaboot. am na njaboot goo xam ne ñu ngi ko mën a saytu. xam nga tane wante am na foofu. parce que dañoo seet fii ki gën a néew doole. moom la ñoo seet. te bi ma gisee gestu mbir Keba Gueye gis naa ne. yàlla dénk na ko njaboot gu bari. car macha allah. te toll na foo xam ne fi mu nekk ni am na doomam yoo xam ne ñu ngi koo saytu. ci yëngu-yëngu bi mu doon def maanaam maanaam liggéey ñaw bi. soo kon kooku am na koo xam ne am na fu ñu ko féetoo. waaw ma ñëw na di seetaat nag mbiri Essa mhm. waaw Essa nekku di liggéey mhm. loolu dëgg la mhm. waaye jàngat naa ne ku daan def business la daf daan def business business daana dox waaye fi mu nekk dafa daanu waaye ba tey yàlla am na lu mu ko baaxee mu ngi dëkk ci këram kër boppam te ni ñu ko waxee woon ci gannaaw man pexe du jeex ci boppam xam naa ne jombut su amoon ku ko dimbale ci lu mun a yëngatooti rek. Mhm. xel maa ngi fa dina mun a am ci nu moo yëngatoo. mu taxawaat dina mun a taxawaat. Mhm. ba tey kooku tam am na lu ko yàlla baaxee. Mhm. ma ñëw ci faatu Ndong. Fatou Ndong moom nekku di liggéey waaye am na doom bu jigéen. koo xam ne mu ngi koo jàppale ci wàllu liggéey bi. kooku ngay liggéey di ko dimbale. ba am na borom kër tam borom këram a ngi fa tam. soo ko gestoo mel na ni moom it am na daal. waaye fu mu hawa a mhm. xam nga fi mu nekk ne dañoo jéem a seet ci maanaam gi rek waaw mhm. nga ñëw na ci Sadio Nding Danfa mhm. Sadio Nding Danfa man ci li ma gis ci moom moom daara la am te ñëpp xam nañ ne daara ca ba moo doon dara sax dañ daan laajte lu ñuy wax àllarba. àllarba de du dara. te ba sax amut. àllarba sax ndax amati na sax oustaz man de gisatuma ko. man suma xale yi jàng daara sax. gisatuma sax ñu joxe àllarba. léegi weer bu dee rek la ñu fay suñu oustaz bi jaxal ci. Mm-hmm. àllarba amatut. Mm-hmm. te jambut nag kii jàngale alxuraan. Mm-hmm. ci suma xalaat bu gàtt de xam naa ne boobu moom oustaz dina ci ñëw. yool bu bare fa. nde xam-xam ngaa def ci nit ñi. te foofu leen kenn séntu fa dara lu la lu la ni mën a jox. Mhm. lu faj dara. Mhm. ci li ma jot a saytu gis naa ne jabaram ñu ne naa ko laa mhm. liggéey. naa ko nag moom euh, waa dëgg ne yàlla naa ko mun loo ci njëriñ bi njëriñ bi tax ko bari bari boobu moom kay li nga caa béy. looy dundee la rek. moom kay jëlee ko ci naa ko bi la rek isitike gi nga dundee ko. te boo seetee atam tam. fi atam toolu nii. ah xam naa ne ku ko dimbale. dina baax ci moom ndaxte fi atam toolu nii. Mhm. yàlla rek a xam. waaw mhm. yàlla rek a xam. Mhm. moo tax man ci suma xalaati boppa ma gestu ko xoolaat naa ko xool ne ñëpp eeloon nañ ko waaye. man dama foog ne Sadio dam fa moo ko gën a yeeloo. ngir. li moo def ci li moo yëngatu mm-hmm. te amu ci fay mm-hmm. di ko def na yàlla tax rek mm-hmm. jabaram di ko jàppal ne fale ci lu ñoo mën a am rek pour dundee ko nekku sax lu ñoo jël pour jaay waaye pour bu dundee ko tax ci suma xalaat bu gàtta rek ma ne ah man de gëstu naa ko saytu naa ko bu baax a baax a waaye Sadio Nding dafa moo moo moo dal suma xel daal waaw euh, Moussa dégg nga li Alaaji Papa wax bi mu jàngatee ñeneenti mbokki jullit yi mhm. kenn ku ci ne mhm. euh, li nga wéyee li nga dundee sa situation euh, moom daal xelam euh, kim gën a jox priorité yaakaar mhm. ñu jox ko ticket bi mooy Sadio Ndingue Damfa dégg nga lim ci lay noo def ak moom naa lim ci lay pour bañ a guddal wax ji sax loolu lu am solo la parce que boo ko seetloo si ñëpp ñoo xam ne moom la ñuy seet fii moo fa gën a kawe at te suñu gis-gis ak gestu ak ni mu tuuti tuuti moo si gën a néewle am am ba pare dundoom tam si yooni diine bi la ñu doyloo diineem su ma seesee si ñetta yooyu noonu rek duma sori sax dinaa ne sanjonding dam fa dëkk bakkaw kaaci kali su man mooy koo xam ne yaakaar naa ne war nañ koo mën a baaxee rafetloo ko li nga xam ne mooy ticket bi nii pour jox ko moom mu dem Màkka. ñi nga xam ne nag ñoo si ton toppa di kees amin Keba Gueye ak Essa Ndaw Fatou Ndong ñi ñëpp am nañ li nga xam ne tam am na luñ yor loo xam ne tam war leen la mën a ñàkk a xaddiloo mm-hmm. beñ ne ah ñii luñ ma def nii déet comme ni nga ko waxee rek mm-hmm. yàllaa ko tudda yàllaa ko tudda ba pare si moom mm-hmm. ñu itam ñuy xëj na yàlla ne ñu tudda ko rek ne moom tam moom la ko jagleel mm-hmm. te ñun loolu rek lañuy ñuy fulfil maanaam loolu rek la ñuy mutali mm-hmm. gis naa ni ñii ñëpp am na ñu ñu def mm-hmm. waaye kii di Sadio Nding Namfa yaakaaruma ne su ma gëstu su ma scrutinise ak xelaat gu gàtta gu ndaw gu tuuti ne yaakaar naa ne moom moo gën a néew doole si ñi nga xam ne ñoom lañ fi wax nii pare taxawaayam tam doole yoo naa ko bu baax tabaarakallah Euh, kon Moussa bu ma jàngatee li alaaji papa li wax euh, ak euh, ci biir ñeneenti nit ñi bu ñëwee ci Kéba Gueye dinañ ne moom day dëgg-dëgg ñawkat la woon waaye léegi alhamdulilah doom ya yore nañ métier ba ba léegoo léeg ñu am luñ ko mën a dimbali kon kooku am na kum tane am na kum tane wax nga ñëw ci Essa Ndaw mhm. ñu ne ci business la doon yëngatu. Mhm. waaye léegi tànne na tuuti ngir mu ngi dëkk ci këru boppam. Mhm. waaw euh, kon kooku am na comme mhm. euh, nga ñëw ci faat ndong ñu ne dëgg néew na doole. waaye nag am na jëkkër. te it am na doom. bu jigéen bu koy dimbale. Euh, kon xaqiqatan góor moo war a dundal. jabar jabar comme moom am na kiiraay fu mu wéeru. kon kooku am na comme tane. nga ñëw ci Sadio Ndig ñu ne amul fu mu dëkk amul mhm. kër mhm. Mhm. ci kër Ourodaam la dëkk euh, amul métier day jàngale daara jabaram sax mooy dem di koti koti ci naa ko di indi ñuy am luñ mën a dunde looloo tax euh, biñ jëlee ticket bi daal ñu xool ko ne ñeenti ñi di saaf nañ ko eyoo nañ ko waaye nag buñ ko seetee daal Sadio Nding waaw mooy ki ko gën a eyoo ci seen biir ba tax dëppoo naa ak yow mm-hmm. ci tànn gi tànn Sadio Nding mm-hmm. euh, jox ko ticket bi mm-hmm. jërëjëf jërëjëf li nga wax noonu sax dafa rafet oustas mbaɗigol euh, kalyamoye ñamen doron mbe futala sadio ndin yaale kata kañin kibar dimata ka futandama nga bankero min ke jam wolo ñinti ko ñimmo nanol mi yalan koye be bente jam bi walla ngi bela koto ka jiibe sadio a dam fa ba be bakaw kaci kali nga wole tombon nga tombon euh, fandal min kan wolo nga bukon ñinti sadio ndin atemu alqouran meccetaabulu euh, walla mathématique kuutaala mm-hmm. amin ah, ah, fen buka naaye dimbal fana baabulu ala muso